lycée bi nak ci commune bi lu bax la parce que day régler problème élèves yu bari parce que autour de Diamniadio amul won lycée donc lycée bi dafa ñëw heure bo xamné ne na nek lycée mais depuis boobu légui ay problème la ñuy parce que matériel pédagogique bi nga xamné mom lañu wara jàngalé xalé a jàngalee xale yi moom fi manqué amuñu livre ensuite salle yi ensuite effectif chaque année de Yoko, parce que population bi chaque année de Yoko. donc de ce fait effectif bi ci biir classe yi day ëpp li nga xam ensuite laboratoire amu matériel scientifique aussi amu oh, euh, la même salle des profs aussi amagul donc li ñu manqué pour ñu nekk lycée dafa bëri. tey li ñu soxla réellement tam taxaw mooy salle des profs bi il faut ñu buñ ko mënoon il faut ñu construire ko construire nañ ko mais yëggagul il faut il faut ñu am aussi on laboratoire laboratoire bi ak équipement parce que laboratoire ko si doyul ak équipement bibliothèque bi am na mais équipement amul donc il faut bibliothèque bi aussi ñu équiper ko comme ça xale yi mën di ci di ci di ci jàng am am matériel bi nga xam ne moom lañ soxla pour jàng ak yokk classe yi